tiit nekk na lu bokk ci doomu aadama waaye nag dafa bëri ay façon ñu ràññee ci lii nasaraan di woowee phobie sëriñ sii di woo ci turu musaka di ab psychologue moo ñu ci indil ay leeral. phobie mooy euh, ragal boo xam ne daal maanaam dafa jéggi dayo nit ki nga xam ne fu mu toll yépp day mel ni fitam bi du taxaw day daw ret te souvent du sax mën expliquer li nga xam ne la ragal lu tax mu koy ragal. te boo xoolee jigéen ñi nag ñoo gën a bëri le phobie nee nañ boo xoolee ñetti jigéen yoo jël yëpp ñaar ñi moom dañoo am phobie psychologue bi dañu nettali ab jaar-jaar boo xam ne moom ci boppam moo ko dund sama maam daf ma yeboon di ma dóor quoi mais jour bu ma xamee ne moom dafa ragal mboot dama jël mboot bi rek ma sànni ko ko foofu la xam si saa si di booba léegi dafa lié maintenant sama personne ak mbott mi léegi xoolatul mbott bi il suffit mu gis ma rek déjà day tiit di dem di nëbbatu donc loolu la ñuy wax la notion de de projection ci psychologie maanaam li la tiital ak luñ ko liyee woon léegi moom ngay ragal donc phobie yu bëri nag loolu lay ñëwee ci xam-xamu psychologue bi phobie yi nit ñi am ci ay jaar-jaar yu métti yu ñu jot a dund seen àdduna ci lay jóge waaye nag def ay thérapie ak ñoom mën na saafara yooyu phobie Marianne Sall, VOA Afrique, Dakar.